comme niñ ko waxee woon xeexu njaago du jeex waaye xeexu Juan Branco moo dul jeex ba tey mi ngi ci kaw président Macky Sall mayu ko dara dafa publier ci ay statut yu Facebook am li nga xam ne moom ngeen di gis ci image nii mu di kii di Marième Faye Sall moom Juan Branco nee na daa yor ay vidéo yoo xam ni yu doy waar la mi ngi mel ni rek xeetu vidéo yi nga xam ne Adamo moom lay dal di publier bëgguñoo jaar ci tur lu ni mel nag bu dee dëgg la moom Juan Branco mu daal di koy publier dina nekk lu doy waar dina yëngal bu baax a baax réewum Sénégal bu moytuwul la ndax ñu yàlla lu ni mel di daal di fuité bu dee lu am la Juan Branco ba tey mu ngi ci combat bi moom la fi président Macky Sall refoulé woon ba mu ñëwee woon ci aéroport international Blaise Diagne ndax dafa am ay mbir yu mu publier woon moom avocat wu Ousmane Sonko bile ne Macky Sall ab tyran la ab dictateur la dafa nekk koo xam ni mi ngi yàq démocratie bu Sénégal loolu waral ñu delloowaatoon ko ci réewum France Bataille ba tay porte momu porté ab combat wam bayiwul ben yoon di xex ak le président Macky Sall ci ay live yi mi daldi di def di ak sénégalais yi itam di dénoncer président Macky Sall partout dans le monde ngir ñëpp xamni ni li Sénégal du deug du Juan Branco momu. Mo attaqué wa tey jii soxnay président Macky Sall di la première dame du Sénégal mariem Faisal. Sall nee na dafa yor ay vidéo wam vidéo yu doy Deug la am la dépendre Juan Branco mu l'éral ko sénégalais yi Wa itam laj bi samp moy, le vidéo Juan Branco yor Taiji, jii mu daf koy dal di xamal sénégalais ne am ko lan la ci djublu. moo waral du coup bu dal nak cette fois ci c'est pour mettre la pression à Macky Sall ndax l'olé daf di deug peng lu ci am l'avenir nous jugera choléra mu mel ni président Macky Sall dafa tambali ab xeex ak ko xamni mom du bàyyi mukk il est très doué en la matière ndax Juan Branco ñep xamnañ ni Emmanuel Macron fé ci France mom rek lay molu, ndax ni brillance bi nek ci mom xarañte gi mu andal way itam am fit ak ñemeli mi def motax sa su nek rek dañ koy daal di xel. on dirait que donc Ousmane Sonko n'a pas eu n'importe quel avocat wu jóge réewum France ñew ci ay ram dafa nek ko Ousmane Sonko di doxal jamono ji muy résistance lolu kese lay daal di wëyal ngir mëna am li nga xamni ni la daal di soxla bu sa ay droit dañ ko bafoué jël ko dëggate ko def li nga xamni mom la constitution bi daal may fan la mbiri di mujjé qui vivra Vera lan moo nar a xew ci diggante président Macky Sall Juan Branco Marème fay Sall Ousmane Sonko loole lépp kumpa jamono ji sénégalais yi bëgg a xam video yooyu lan moo ci ne kan moo ci ne lu ci mënti am mooy bu dee dëgg la dina nekk une chose inédite au Sénégal lu fi mësut am. te bu boobaa nag gëm nañ ne sénégalais yi ci la ñuy yegg terminus ak nguurab Macky Sall comme ni usmaan Sonko yeggee terminus ci dossier Adji Sarr suite ba